ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di wax xalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaakaar naa ne tey jii ñu ngi fii Tëngéej euh, fekk fi kilifa gu mag gu dem gu ñaan Papa Yada yoroon xale Tëngéej yëpp yaakaar naa ne xale yi nga xam ne Tëngéej lañ daan yeewoo koo ci dégg rek mu naan Papa Yada Papa Yada ama neex ñu ngi lay nuyu di la wax Sigal waaw Fadam billahi maa ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu fi ñëw ah. sunu papa sunu kilifa sunu entraîneur moo fu wàññeeku muy papa Yaakaar ñu koy wax Ibra Yaakaar uh-huh. mu yoroon équipe nationale du Sénégal gërë ko uh-huh. yoroon équipe nationale bu Sénégal doon directeur technique uh-huh. yoroon Moustapha Gueye yoroon moo Fadam yoroon Toubabou Dior. yoroon mhm. Mbaye Guèye. Mhm. yoroon Double Less. incha allah équipe nationale yóbbu na ñoo ñoom ñu tukki tey nag moo fi wàññeeku. Mhm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla xaar ko àjjana ak képp ku mu fekk si bàtt Seydina Muhammad. ndax papa Yade bu may wax si moom. du ma fi jóg ndax ginnaaw yàlla xam ne nu ma mel rek man papa Yade moo ko def. ndeysaan nu ma mel. papa Yade tey moo tax naan ma sàngara papa Yade tey moo tax tuxuma yàmbaa Papa Yade tey moo tax agressé wu ma moo ma jël jàngal ma bare tette ma. di ma jox añ di ma jox ndékki di ma entraîné ba pare di ma tette bëj ni ma toll nii tey jii di ko jaale. Mhm. Sénégal addina. Mhm. ndax kooku doon na nit koo xamante ni international la. Mhm. yamul Sénégal rek ndax yóbbu na ay mbër fu ne si àddina kon donc maa ngi koy jaale ay doomam. di ko jaale sama bopp ndax. kenn du papa Yada nu ma mel nag moom moo ma ko def. Mhm. wóor na sama waajur wi di romb. Mhm. moom a tette daal tette ma su lu bari. seen diggante ak moom dama gis ne da nga ko fonk lool dama gis ne lu ñu wax rek nga ne papa Yada. Mhm. te loolu dañoo dem ba tey jii bépp médiaw Sénégal dégg nañ ama neex ma ñaari baat. ak nga nekk bitim réew nga nekk Sénégal te tuddoo Papa Yada lan la. lan la leen defal ci sport ba tey jii mëntu leen ko fàtte. waaw nee la si biir wax moom moo tuxuma yàmba moo agressé wu ndax moom moo ma jàngal li nga xamante ne muy làmb te du làmb rek la ma jàngal dama jàngal nit ni mu war a man a comportement rek. Mhm. jàngal ma communication jàngal ko samay morom ndax maa samay morom ñoo fi nekk. Mhm. di ko jaale mbëri tëngeej yëpp rawatina nag man maay bopp bi mais maa ngi koy jaale kuli mbër. Mhm. kulu sportif maa ngi koy jaale. xëy na peut être am na ñu mën a am na ñu bëgg a ñëw mënuñoo ñëw. donc nag Papa Yada doon na koo xamante ne si man. mooy suma papa mooy suma yaay. Uh-huh. mbër lu mu rëy rëy rëy bu ma joxee lu tic bi nga ko war a daane tic tac boobu laay joué. Uh-huh. mu xettali ma nag su lu bari. tey bu fekkee ne yàlla dama dimbale may jaabante partout dans le monde. Uh-huh. par grâce à papa yàlla. ndeysaan ndax moom moo ma tette teg ma si yoon. ba tey ma góor góorgóorlu ba am tur. ba fu ma taxaw yàlla suturaal ma may dem international. kon kooku kooku maa ngi koy ñaanal yàlla guddeem gii tey. bersah makanya ngi koy ñaanal malaaka yërmande teeru ko si barki alxuraanu karim si barki Seydina Muhammad mhm. ku sa tànk di métti papa yàlla moo koy faj ku sa loxo di métti sax papa yàlla moo koy faj ku rëx ku fox ku damma papa yàlla moo koy faj rawatina ñun ñi nga xam ne ay leader lañ moo ñu jàngal communication ku leen mag jox leen ko cax bul diggaloo manul bul wax fi nga bëgg ko wax kenn man ak loolu la laa xam si góor gi mu doon ko jullite mhm. gëm sëñ Babacar mais lan moo taxoon muy nëbbatu lan moo taxoon daanu nangoo fës ak li mu mën lépp te dañ ko doon gis ne daanu nangoo feeñ lu war a loolu ci moom waaw moom nag xam naa noonu lañ ko yaree même média sax bu ñëwee di ko seet sax du ko gis ndax tellement que dina may ñenn ñu gis ko mais santeem demoon na ba euh, doo du mën a fës mhm. te papa yaa dama rek maa ko daan génn si ngelaw pour doyaa sa baax maa ko daan génn si ngelaw muy ngelaw mu toog séesam di ma entraîné. def ma doom ma def ko papa jël lépp jébbal ko ko. buy sedd maa koy tax mu génne. toog séesam. di ma dóor yet dama defal li te saa yu ma ko defee am si résultat. kon kooku bu demee damay wéet. waaw ah. dëgg rek moo neex yàlla ndax aw kenn ku lu moom daa bokk ci man. mais nag ku ne nag seen saa yaxati mawti mhm. mënu ma xëccoo suñu borom. ndax ñun. Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp. Mhm. te kooku bu demee rek war nañoo mën a sant yàlla ndax moo tax yàlla saako na. nan nga yëgee ne dem na. waaw euh, daf ma fekk saal may entraîné. président gàmmu goy moom ko wax dañ ma kaa nëbb ma ba pare ñu doog ma kaa wax. ñu ne lii moo taxoon bëgguñu la ko wax ndax def naa biir wi mhm. ndax bett na ma. Mhm. te jël na ma kaw. Ah, na yaakaaroon naa la paa bi dinaa bëri ba pare muy doo ko dal. waaw waaw yaakaaroon naa loolu mais nag sant yàlla daf may gën a motiver. Mhm. day tax ma gën a am jom gën a xam fi may teg sama tànk ndax li ma jàngaloon au début ba léegi depuis 15 ans maa ngi nekk à Papa Yada mosuma changé entraîneur. dëgg la mosuma génn écurie bi. Mhm. mosuma dem beneen écurie te tey am na écurie yoo xamante ne bëgg nañ ko ku mel ne ama neex. Mhm. mais sàmm sama ngor ba xaalis bu ñu ma fay moom laa koy tagal lu mu wax loolu la lu mu waxul du sant ñëpp di gërëm ñëpp. mais mais mais nga am entraîneur boo xam ne nii da nga def ak moom daanaka lu jege vingt ans. Mhm. sa dibi carrière lépp moom nga nekk ak moom. Mhm. bés ñëw nga nar a préparé doo ko gis dina métti lool. waaw dina metti nag mais daf may motiver daf may motiver si lu bëree bëri. daf may wax nag baaxul. Mhm. mais yàlla baax. dafa mel ni ama neex war na taxawaatee beneen taxawaay. waaw. ndax yaakaar naa ne pour papa Yade nga def li mu bëgg mooy. nga uuf xale yëpp. dëgg la te ñëpp. Mhm. yor taxawee position quoi. Mhm. dëgg la loolu laa la ma yare. waaw kay moo tax loolu ma la yare mhm. dama am yaa jiitu. bu jiitoo na di dégg lu ne. dëgg naa yaay kan uufal say rak uuf saas yàlla moo koy maye. doomu aadama moo koy maye. Mhm. maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale njabootam mhm. di ko jaale njabootam njabootam ku taxawu seen bàyyi la mhm. fekk naa rawatina màgget ayaa maam Fatou Aïssa Yaaku Ibra ñoom ñëpp dañoo taxawu baax dëgg na yàlla ndax fekk naa li may wax nii daf ma wóor aw ma sens interdit kër papa yàlla aw ma fi sens interdit yàlla rek moo tax may seere pour sama bàmmeel laa taxaw tey mu fi dëgg maa si kon maa ngi ñaan yàlla yërëm ko xaar ko àjjana ñàkk naa koo xamante ne dootuma ko amaat si kaw suuf ñàkk naa koo xamante ne waajur la ci man mhm. ñàkk naa koo xamante ne amoon na yërmande ci man mhm. ñàkk naa koo xamante ne dafa bëggoon sama réussite mhm. total ndax li muy daj ci man kon donc loolu bu amee dama si sant yàlla na suñu borom kenn xëccoo ak moom lépp lu mu def rek dañ si ànd ak moom ndax moom moo xam démb moo xam tey kon maa ngi kay jaale waa CNG aussi Uh-huh. ndax tey yaakaar naa ne Papa Yade am na lu mu def CNG. Uh-huh. am na lu mu def CNG maa ngi koy jaale waa CNG di ko jaale lu làmba di ko jaare sportif yëpp ko jaare daal àddina ak Sénégal. jërëjëf. président Macky Sall. Uh-huh. ñu ngi koy yëgal nag sunu entraîneur ki nga xamante ne moo yor équipe nationale bu Sénégal moo génn àddina ñu koy wax Ibra Yade. ndax même bu mënul ñëw sax. mu yónnee fi ndax Ibra Yada am na lu mu représenté woon Sénégal. wallaay ndeysaan. mais damaa gis léegi nag loo représenté Sénégal gars yi duñ la teg fenn. jërëjëf maa ngi lancé appel président Macky Sall sunu président maa ngi lay lancé appel nga gëstu kan mooy Ibra Yada kan mooy Papa Yada représenté Sénégal ay jamono yoo xam ne ay at ba Sénégal toll fii. jërëjëf rafet na mu yónnee fi ndaw.

Euh, delloowuñ ko li mu moom mooy lan mooy dafa doon euh, directeur directeur technique national waaw doon entraîneur national dafa maanaam ñaari fonction la yoroon à l'époque mhm. directeur technique national doon entraîneur national si jamonoom ci ayam bi bi mbëri di dem di am euh, ay ay médaille d'or ci ayam la woon boo xoolee bi mu bàyyee équipe nationale ci la équipe nationale amee problème ba tey mënatuñu am médaille d'or euh, olympique mais ñu euh, wala médaille d'argent wala sax nga xeñti woon ko ngir xariñam muy Cheikh Mbaba jamono bi xëy na peut-être xale ngeen mais sabre d'or bi daan am ay ñaame mhm. ñëpp fekkee nañ ko fi ay ati ati at ku mel ni Cheikh langa langa ñoom Moustapha Gaye Amadou Kati Diop dama ne équipe bu ñu doon wax dëgg-dëgg Sénégal te jamonoom la woon Touba bu Dior ba mu ay léegi dëgg-dëgg moom moo ko doon entraîné. ñun lépp fii la ñu fekk tey. waroon na mën a xaw ma am na ko am déet mais ki waroon na am ordre national du Mali. wala Lion. parce que ñi ma limal nii. buñ fi nekkoon tey ñu wax la ñu wax la. lu leen kenn mësul wax parce que man ma ko fekkee dafa ma sélectionné équipe nationale. mais jamono yooyu saa yu équipe bi demee. indi ay trophée lu leen nañ. Mhm. mais ginnaaw si gi nag bon ñu changé bi mais biñ ko la.

lan moo nekkoon ci moom ba xale yi gëmul ko ci niveau entraînement ak lépp. mais secret bi xale yi do tey jii boo waxee ama neex. wala nga wax Gamou Gueye wala Youssou Ndour. xale lébu yooyu nga xam ne miin naa leen li tax ñu dem fu ñuy waxee Papa Yade parce que xam-xam bi nekkoon ci moom moom la leen doon transmettre. dama ne entraîneur bu qualifié la woon li ma lay wax nii euh, moom fils du ay caaxaan de. wallaay de góor gi Ibrahima Yade. Mhm. dama ne entraîneur bu qualifié la woon. Mhm. dafa boo xoolee xale yi ni mu ci tàggat indi si làmb yëpp mhm. gis na jaloore bi ñu am ay résultats yu leer la ñuy indi yu leer te ñoom ku ci wax benn wax na ñaan leen papa yàdda parce que xam-xam bi ñu yoonoon da ko doon jox ak xel bu rafet mhm. ba tubaabu joor dem si yàlla kooku yàdd rek la bëggoon parce que tubaabu joor bëri na combat yu mu gañ yëpp yàdd moo ko préparé mhm. ba tax na daal vraiment ku ku ku màgg ci làmb ku def lu ne ci réew mi dem na. Uh-huh. koo xam ne archive yi amul woon benn entraîneur wala directeur technique bu ko mënoon fi ci réew mi. Uh-huh. je défie nag kii kon li may wax nii. Uh-huh. képp ku fi mës nekk directeur technique koo munti doon Ibrahima yaa di doon sa morom. déggoon naa ne sax am na lu mu bindoon bàyyi ko CNG wu Sénégal. waaw loolu xanaa ñu gëstu ko rek muy ay. oeuvre waaw ci wàllu noonu mel ni euh, euh, CNG fekkee ne loolu am na. war nañ gëstu loolu. li ma la mën a wax daal. Fadam. Mm-hmm. ah góor gu ma dem na ci làmb de. loo xam ne. Mm-hmm. yàgg na préparé athlète ñu indi ay raay fii ci réew mi. ndeysaan. ñu ngi la koy jaale bu baax. jërëjëf di la ñaanal jàmm bu baax ak sutura xewal. amiin amiin yaa rabbi jërëjëf ko ñaan nag vraiment li mu fi bàyyi njaboot yàlla si yàlla teg loxo. allahumma amiin yàlla na alaaxira di noflaayam. allahumma amiin ñu ko jaale nag ak lu làmb yëpp. je mm-hmm. pense que ne le président Bira Sène. Euh, xam naa ne le CNG. bu ñu déggee daj bi il va faire une forte délégation. même kon nañ parce que kii dem nii li ma lay wax daal. du como. lu ko ndaw ci làmb de. jërëjëf waaw du ko ndaw ku làmb. jërëjëf. waaw. ñu ngi màggal borom bés bi muy Papa Yade. ndeysaan. seen diggoon seen digganteen ak moom. suñ diggante Papa Yade euh, yaakaar naa ne mënuñu wax lépp parce que góor gi koo koo rek day defe na moom moo ko mën. ndaxte fii lay ñëw mu jóge équipe nationale yaa ngi dégg mu fekk ñu géej mais nag am na su ko xamante foog ñu wax ko muy suñu maire dëkk bi muy Aline man mhm. nag bu ma politique mais foog ñu wax ko parce que bu équipe bi amee da wax lii tax équipe bi am ndaxte moom moo jëloon engagement di ñu fayal ci Papa Yade pour ñu entraîner ay séance ba nee ba sa biir nombre bi bëri mu ne yëpp yi mbër yëpp amul si dëkk bi xool lii dootuma ko mën a fay papa Yade jël li si des si mbaaxam ak jabaram juñ naa mère Fama yàlla na yàlla yërëm moom it dem na. kooku nag mooy léppay écurie bi moo waral tey mu samp écurie bi ba écurie bi taxaw ku si mel ni Palla Mbengue ñëw jàppale ñu. Mhm. yaa ngi dégg ñoom jabel ñi ñëpp si écurie bi lañ nekkoon dañuy jàppale mais yàlla def na ñun ñoo fi doon bëre ba suñu rakk ñëw ku si mel ni am Ama Neex ñoom Gamou Gueye yaa ngi dégg euh, Youssou dimi problème ñoo ñëpp ba ci bàyyi ndeer xam nga uh-huh. ba tay si ñoom lañ am yaakaar pour xalé yo xamanté ñoo wara fekk ci gaay yi si kaw uh-huh. mais gor gi dal si gàttal dal gor gi ñëpp la woon uh-huh. parce que nañ waxtaan si lu euh amul mbeur mu mu tuddul si Sénégal na yor na ku ci melni ni yor na ko Tubaabu Joor Basim ay mam jamban xam nga mbeur yu bari dal euh dañ waxtaan ak mom mu may wax fi mu jaar ñoom lolo nga loolu dama yaakaar ne papa yadda àddina la woon mhm. ba si Moustapha Gueye et cetera ak kii mhm. Nouradi kii na woon équipe nationale pa bi Ambroise Ambroise yooyu ya yadda dañ si daa waxtaan kon kooku góor gi ñun man ko xam laa ndeysaan waaw yaakaar naa sama waa ji jégal euh, lan moo nekk témoignage sa euh, papa di ñaanal góor gi fi jóge suñu papa suñu kii moo fi ñëpp moo fi njëkk ubbi saal ñun ñoo dekkoon si saal fi di entraîné ñun ñëpp man ay commissaire Sini Libas Gossas mii tey ak ñeneen ak ñeneen ba booy yi tey daal di ñëw li ma leen wax si moom daal góor bu baax la et puis yëg doomu aadama la kuy jàppale nit la ñu koy ñaan yàlla ko yàlla si daw si yàlla day yërëm na suñu borom ko suñu borom topp dara yàlla day yërëm na suñu borom ndax loolu daal laa lu ma see wax ndax paa bi daal moo ñu yar quoi. jërëjëf bu xamee entraînement. gannaaw yàlla moom moo tax jërëjëf moo ñu formé jërëjëf ñun ñëpp moo ñu formé ba ñuy tukki ñuy def jërëjëf waaw ñu ngi ñaanal itam sama benn booy bu ngi tudd ñu wax Assane Diop papa yàgg mhm. moom itam yàlla ko yàlla xaaral àjjana di fàtte allahumma min yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana tey fekk si barke alquranul karim jërëjëf waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf jërëjëf